laa ilaha illallah saydina muhammad rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam ay jërëjëfe yàlla alhamdulilahi rabil alamina jërëjëfe yàlla alhamdulilahi rabil alamina jërëjëfe yàlla alhamdulilahi rabil alamina jërëjëfe Thierno Moule Sow jërëjëfe Thierno Moule Sow jërëjëfe Thierno Moule Sow jëbi daal li ci nekk kenn musu koo gis alxuraan baa ngi ni tapp ci jëbi kenn musu koo gis yàlla rek a mën lii yal na la fi yàlla yàggal yàlla ci barke yonent bu tedd bi ci barke ñett Thierno Moule Sow yi. asalaamaaleykum association Thierno Moule Sow famille maa leen nuyu di leen ziar di jiite suñu yëpp suñu xalif général Thierno Moule Sow international le king des kings li ko ñaanal yàlla gudd fa ak wér al seen nuyu naa la yow la fekk si bunt bi maman Khady xaritu baay maa leen nuyu di leen ziar ah man de photo ma si jàngal jëbi moom allahu muhammadu de pour man loolu laa gis de. ak si ñi moom laa ilaha illallah laa fa gis waaw loolu de remarqué naa ko xaw ma nag man moom loolu la ma jox jëbi nii allahu muhammadu laa si gis tuñ yi laa ilaha illallah laa si gis kay asalaamaaleykum man nag euh, xool naa photo bi de waaye xool naa bu baax sax man euh, euh, bët bi mooy côté droit bi gis naa fa daal allahu te boo wàccee tamit ba ci tuñ bi si suuf tamit bind nañ fa ay baatu alxuraan ak euh, tamit moustache bi tamit boo ko seetloo bu baax di nga gis tamit lu mel ni ay baatu alxuraan ñu bind ko foofu man daal xaw naa si seetlu lool ak jëbi tamit ñu bàyyi waale ci xel. macha allah macha allah prési macha allah maa ngi sant sunu borom di julli si yonante Muhammad rasul alayhi maa ngi sant sama ñaari buñ ma mayee fekkee ak tal ba mu fekkee bës bu mel nii maa ngi sant bu baax a baax baax di ñaanal sëriñ bi gudd fan ak wér ak wérle yan na ko yàlla yokkal xam-xam yal na yàlla yokkal leer bi jéebi allahu muhammad bu si nekk ak tuñi laa ilaha illallah bi xefi bët yi xefu bët yi ci suuf am na allahu bët yi xef ci suuf am na allahu allahu macha allah macha allah macha allah waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi nuyu naa leen waa association bi nuyu ñëpp di jiital nuyoo bi seen sëriñ na Moule Sow xalifa général di jinne waaw photo bi moom man boo ko xoolee waaw Thierno photo bi dafa yéeme photo bi boo xoolee tuñ bi da nga ciy gis allahu muhammad boo xoolee jëb yi da nga ciy gis allahu muhammad boo xoolee bët bi da nga ciy gis allahu muhammad maanaam photo bi daal leer leer la leer leer macha allah. waa asalaamaaleykum maa dikkaat maa dikkaat soo tot tot alhamdulilah rabbil alamin macha allah photo bi Abdou Dieng leer na nañ bind nañ ko bind nañ ci allahu leen allahu leen ci bind en plus photo bi dafa leer bët yi dafa leer nañ bakkan bi aussi tamit macha allah daal. leer na ngi ci de leer ngi ci wallahi la aziz ko waxoon sax mashallah auditeurs yi kay mashallah leer ngi ci bët lépp leer mu ci man de Alseyni sama vision bi daa mooy lima ma wax rek jë bi allahu muhammad bi lèvre inférieure bi laa ilaha illallah bi eh, xef ci suuf allahu bi ak diggante bakken bi ak tuñ bi ci kaw diggante bakken bi tuñ bi kaw moustache yi foofu am na tigre am na kanamu tigre waaw boo xoolee di nga gis bëtu tigre bi foofu mu ngi foofu diggante pax paxu bakken bi ak tuñ bi ci kaw moustache yi foofu diggante pax paxu ba tuñ bi foofu boo xoolee bu baax da nga gis bëtu tigre da gis kanamu tigre bi foofu mu ngi foofu waaw tigre bi mu ngi foofu waaw waaw photo bi zoom naa ko kool naa ko koolaat vraiment gis naa si ñett leer gis naa si ñett leer bu génne si kanam bi beneen bi si jow bi la génne beneen leer bi moo nekk si bakkan bi wàccee si kanam bi yëpp beneen bu nekk si tuun yi vraiment di def leer cela veut dire que gis naa si ñetti Thierno Moule bi ñetti Thierno Moule bi gis naa ko si photo bi macha allah beneen bot bi gis naa si allahu beneen bi gis naa si Muhammad surtout ñi gis naa si laa ilaha illallah donc kanam bi yëpp ay alquran la kanam bi yëpp alquran lañu bindi même mustaas yi saa beneen mustaas bi boobu allahu la eh, beneen bi Muhammad waaw boobu moom gis naa ko si kanam bi macha allah vraiment allahu Muhammad lañ fi bindi ka bi yëpp macha allah gis naa fi leer bu leer nañ ñetti Thierno Moule macha am na si si si si jëw bi am na si bakkan bi am na si tuun yi vraiment yooyu yëpp ay leer la macha gis naa même kaala bi sax kaala bi sax si boppam gis naa si ay alquran macha allah yàlla na fi yàgg te wér soo pullo kaala bi ci kaw kaala bi ci côté gauche bi ci kaw kaala bi du góor de maa fii du góor de tigre la wala lion waaw gaynde bi moo nekk foofu kaala bi ci kaw ci côté gauche bi ci kaala bi ci kaw côté jë bi ci côté côté kii bi ci côté nopp bi ci jë bi ci kii bi ci tàmp bi ci tàmp bi foofu du góor de du góor tigre la wala lion du góor mu ngi ci kaw kaala bi mu ngi ci kaw kaala bi tigre la du góor de du nit de tigre la wala lion mu ngi foofu ci kaw kaala bi ci tàmp bi ci kaw ci gauche bi waa foofu la ci gauche bi mu ngi foofu du góor de du nit de tigre bi la wala lion bi la moo nekk foofu waaw maa ñëwaat maa ñëwaat mais ci kaw noonu ci kaw jëb bi tamit dafa mel ni moom moo fa nekk ci kaw jëb bi moom moo fa nekk toog mu ngi toog yor bantam def bopp jaan bi bant bu ndaw bi moom moo too nekkaat ci kaw si kaw allahu bi ci kaw ci jëb bi moom moo fa toogaat moom Cerno moom moom moo fa toogaat mu ngi ngàbb yet bu ndaw boobu muy ngàbb te bopp bi nekk bopp jaan asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatuhu man la Marème Sall ñoo ngi ziar di dellu chaque jour di ko ziar di ko yeesal kii kay xool ci kanamam rek leeration rek nga siy gis ba pare en yëpp waaw kanam bi yëpp baatin la macha allah en tout cas daal man gis naa ci wetu jëbi ñu ngi ci bind allahu xawma ak affaire yi daal am na ay bind daal waaw am na ay bind. kanam bi leer na lool waaw si tijja bi moom am na alaaw waaw man daal sama gis-gisu bopp daal ah gudd na nag foog naa ne daal moom am na lu si topp waaye daal moom macha allah macha allah xool ko sax di ko barkeelu sax di ko raay di ko def ci sa kanam sax macha allah waaw ah loolu de man laa gis xaw ma nag waaw xëy na ñeneen ñi su ñëwee am lu ñu wax. salaamaaleykum waa groupe Daroulaye bu càmma mu lay saw maa ngi leen a nuyu Ousmane Sam si sama roose maanaam nii gis naa photo sëriñ bi waaye man dama gis si jéyam bi leer gu nañ nañ nekk allahu moom laa gis si jéyam bi man la anti yande alabama teskeeju waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum daawalahi international Thierno Moulé Sow maa ngi leen di nuyu ku ci nekk di baax di nuyu bi di ko ziar di ko ñaanal mu yàgg fi te yàlla gën a dëgg taxawaayam yokk dooleem moom ci ne mi yëpp defal leen jàmm ñu bàyyi leen fi nag ñu yàgg di ñu jàppale incha allah waaw maa ngi jégalu Ousmane dama ne ci photo bi après avoir zoomé gis naa ci jëbi euh, turu allahu loolu laa ci gis billahi min ashaytan irajim bismillahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu suñu sëriñ euh, le maréchal Thierno Moule Sow yàlla na fi yàgg te wér di ziar suñu yaa ajaratu Mariama Camara di ko ñaan yàlla gudd fan ak wér gi yaram yàlla sàmm ko sàmm ay njabootam macha allah macha allah maréchal li ñu gis ci jëbi leer na nañ allahu bi ak boo xool am na am na lu ñu bind ñu bind waxtu julli yi ba ci feeñ ah, boo xoolee teen bu baax day mel ni muhammad rasulullahi mi ngi si ak leeraay bi bu leer nañ daal loolu gis naa ko macha allah suñu sëriñ le maréchal Thierno Moule Sow yàlla na fi yàgg te wér mooy li may wax tout le temps terol ñun ñaan bi yëpp buñ koy ñaanal yëpp suñu ginnaaw suñu suñu lay ñëwaat parce que moom yàlla defal na ko ba pare yàlla dafa defal na ko démb tey door ñëw kon nag macha allah moom dafa am démb am tey am suba donc mooy ñett ñetti mu la Sow macha allah kon daal mi ngi noonu suñu sëriñ bi adduna bi yëpp xam nañ mooy ma wax rek ñu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn bañu ko ñëpp ko dañoo xamagul moom mais bi ñu xamee kenn la adduna bi yëpp. ginne yeex de arab yëpp nañ ñëw incha allah bu neexee yàlla jërëjëf sama sëriñ maa ngi di ziar waa kër gi yëpp na panel bi yëpp maa ngi leen di ziar di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. macha allah macha allah association Darou Laye international Thierno Moulay Sow man la Ousmane sama sama sama ruusi man tam ma wax macha allah lu ma gis si photo bi gis naa bët bët si suuf su sourcil si suuf bët bi à gis naa si Allahu Muhammad. si jëbi gis naa fi laa ilaha illallah muhammad gis naa ko si waaw macha allah man moom euh, li ma gis laa wax waaye nag après bu soobee yàlla sëriñ bi si boppam dinañu gën a leeral waaye moom xar kanam bi yëpp ay turu yàlla la ak ay muhammad kooku moom gis naa ko si bët bi si suuf comme ni ma leen ko waxee bëtu droite bi à droite gis naa fi allahu muhammad macha allah ak leer bu doy waar bu jégg dayo waaw man lii mooy sama impression si photo bi macha allah jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim. Sow sa barke Maria Sall Thierno Moule Sow sa barke Maria Sall Thierno Moule bi macha allah lu ma gis si photo gi de zoom naa ko si jéebi gis naa fa leer gis naa fa allahu pare nag dafa mel ni gis naa fa kaaba gi. macha allah loolu nag moom man ngi koy maa ngi siibur naa ko trop dafa mel ni gis naa kaaba gi gis naa comme ni ñu nu ñuy waree kaaba gis naa fa benn nit bu taxaw macha allah mel ni ku jubal kaaba gi ni di ñaan gis naa ko si jéeb bi tamit boobu nag man boobu laa gis waaye gis naa allahu bi gis naa leer gi macha allah waaye gis naa kaaba gi tamit de wallahi waaw salaamaaleykum borom sam samarosi macha allah man daal li gis si jéeb yi bari na de gis naa si ay bind alxuraan yu bari mais su ma ko zoomee zoom ko zoom ko ba mu ëpp dootu day day day dem comprendre nga waaye nag man moom macha allah gis naa si ay yoon tamit gis naa si benn yoon nii yoon benn yoon nii xaw ma nag yoon bi lan la gis naa fi affaire bi dafa mel ni dañ ko ñaw si sa dafa mel ne sa jëb yi ak sa xar kanam yi dañ ko si ñaw xam nga lu ñu mooñ <laughs> allahu akbar man mosuma gis li si kër àdduna macha allah man daal loolu laa gis. waaw tànk très bien jàll na ma duggaat tuuti waxaat xam nga moom suñu site bi boo amee temps boo fi dugg doo doo taayal di ngay dugg rek ngay gën a kontaan di dugg rek di gën a kontaan nag man moom ñëpp mu ne ma yow léegi bàyyi nga suñu site yi léegi kenn xam fi nga nekk waaw fi ma nekk moo baax rek waaw Ousmane président peut-être hmm, bi xam nga lu ñuy wax am noore am noore leer bi. li jinne di wax leer da leer xoolal xoolal kii li ñuy waxee si sax ciini xam li ñuy waxee ciini sax xoolal leer bi dafa leer maanaam am annoore quoi annoore waaw daf may fàttali rek jour bu muy ànd ak ay taalibam mooy groupe bu njëkk be groupe bu njëkk boobu dafa amoon kër muy texu dem di wane di wane ñooñu kër fu mu war a dëkk si waaw du mel ni fulaar bi la defoon waaw xaw ma yëre bi la defoon xaw ma dafa mel ni kaala bi ak euh, kii jege mag yi la defoon waaw vraiment lii moom leer la rek leer rek xam nga li wax leer annoore waaw leer rek mu gën a leer chaque jour waaw ak borom bëtu allahu wi asalaamaaleykum asalaamaaleykum association Darou Rahmane leen di ziar bu baax a baax macha allah macha allah man comme ni mu leen ko waxee rek egg si naa bu yàgg dama doon noppaliku nelaw dama yeewu nii rek ma ne xaaral ma dugg si laa dugg yem ci lii Eh, macha allah maa ngi ziar suñu sëriñ Thierno Moulay Sow maa ngi bu baax a baax macha allah si macha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar Thierno maa bu baax a baax a baax a baax a baax ngi lay ziar bu baax a bi ak Abu Diop waaw am na solo Diop ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax waaw man foto bi nag euh, lu ma ci gis mooy leer gis naa ci leer tuñ bi dafa leer waaw kanam gi leer nañ jibi ñu bind ci allahu muhammad man loolu laa ci gis mu ànd ak leer bu yéeme bu yéeme sax fa tabaarakallaahu bu yéeme yéeme yéeme sax macha allah Thierno maa ngi lay ziar. ci rafetlu di la ñaanal jàmm war ak war yaram war dundal dundal dundal bu am ati ati ati jinne ñu ngi suñu yaay yu baax ajara cu Mariama Kamara ñu ziar bu baax a baax a baax waaw loolu laa gis ci photo bi fa tabaarakallaahu salaamaaleykum wa rahmatullah waaw leen yéen ñëpp ak seen tur ak bi lu ma si gis photo bi lu ma si gis si géej bi géyi coono lay sow bi si géyam bi allahu moom laa fa gis man suma gis-gis bi waaw man daal suma gis-gis gi waaw si si photo bi sëriñ bi sëriñ bi si photom bi photom biñ dugal nii photom biñ dugal nii sëriñ coono lay sow Maria Sarr man daal lu ma gis daal si si géyam bi allahu moo fa nekk si géyam bi allahu man Fatima Cissé Moulay man lool laa gis man suma suma gis-gis ba pare kanam bi xanga kanam bi tam xanga leer mu ngi fa kanam gi tam leer mu ci kanam bi mu ngi macha allah maa ngi ko nuyu yan ko ko yàlla may fan bu gudd ak wér ak dal maa ngi nuyu ñëpp ci association Moulay famille yi nuyu naa leen yéen ñëpp waaw ku ma si tudd rek xam ne de. sa tur la faatee waaye ku lim jum maa ngi leen naa nuyoo yéen ak seen tur ak seen sant macha allah macha allah bég naa kontaan naa laay saa yu ma gisee photo bi dama de bég dama de kontaan macha allah sa kanam maa ngi nuyu yéen ñëpp ak seen tur ak seen santa nuyu naa leen yéen ñëpp macha allah sa kanam kanam kanama kanam kanama billaahi allah nuyu naa leen man la Fatima Ceesay Moulay kontaan naa I love you all. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi ziyaare suñu sëriñ bi sëriñ bi tedd bi borom leer xam-xam mu ngay ziyaare bu baax di jox sa wàccuwaay waaw di ziyaare Ousmane ah ñun de photo bi xam nga euh, man duma ma si gis boog man allahu laa si gis waa si bi waaw moom macha allah leer gi mm, daal am na leer daal bu nga xam ne nekk na si kanamam nga xam ni daal euh, boo xoolee jëbu bu baax allaaw lañ si def boo xoolaat bët di ñu allaaw waaw même ba si euh, kiyam yi sax euh, allaaw lépp allaaw la kon ah man de loolu laa si gis man waaw te am na leer gu gu leer gu nga xam ne boo xoolee photo daal am na leer ba nga xam ne daal danga ko si gis waaw loolu laa si gis ah xaw ma nag <laughs> xanaa am na leneen lu si nekk leneen da nga xam ne mënu ma ko xam mais daal xam naa ne daal man loolu moom gis naa ko si moom. asalaamaaleykum waa Darou Lahi association internationale bu Thierno Moule Sow la maréchal man la Khadija Moule. waa Seydina Ousmane foto bi macha allah yéeme na ndax allahu bi ki bakken bu boo yéege ci kaw ñaar mi ngi fa ak ci côté yéen yi ci côté yéen yi tamit ñaari ngi fa waaw moom daal dañ naan macha allah rek macha allah di ko ñaan rek yal na yàlla yokk ay fanam gën koo ñoddi muy gën di dimbali askan wi di gën di dimbali jinne di leen tuubal di leen indi ci yoonu siraatal mustaqim yal nañ ko yàlla fayal ku xool tey vidéo Ahmed Aidara bi rek nga xam ne nekk ak yàlla rek ko wóor waaw li Ahmed Aidara révélé yépp nit ku ne war na see jàngatee ci mbirum soxor ak nit ku ne war na jàng jàngatee xam ne dëgg rek ay dëgg ak doyloo sunu borom waaw te sunu maréchal moom loolu la def dafa doyloo sunu boroom waa di ko ñaana rek yàlla gën ñu xiirtal ci yoonu siraatal mustaqim di ko ñaanal yàlla gën a ñoddi ay fanam rek ci barke yaa rasulullaay jërë ngeen jëf mu déglu audio yi xool information lu xew ci kër gi. waaw macha allah kon man foog ma arrêté zoom parce que damay cherché ba mu ëpp waaye xam nga maa yoon bi de gis naa daal. laa ilaha illallah gis naa muhammad si suufu bët yi si xef yi foofu si suuf gis naa fa muhammad gis naa benn yoon waaw xaw ma nag waaye nag maa ngi cherché waat waaw maa ngi waat macha allah xam nga lii moom dafa doy waar lii dañ ko mooñ quoi lii dañ ko ñaw si sa biir xar kanam lañ ko defar sa kanam bi yëpp dañ ko defar macha allah waaw waaw man photo bi nag euh, lu ma ci gis mooy leer gis naa ci leer tuñ bi dafa leer waaw kanam gi leer nañ jibi ñu bind ci allahu muhammad man loolu laa ci gis mu ànd ak leer bu yéeme bu yéeme sax fa tabaarakallaahu bu yéeme yéeme sax macha allah Thierno maa ngi lay ziar ci rafetlu di la ñaanal jàmm war ak war yaram war dundal dundal dundal bu am ati ati jinne ñu ngi ziar suñu yaay yu baax ajara ci Mariama Kamara ñu ziar bu baax a baax a baax waaw gis ci photo bi fa tabarakallahu salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum station Thierno amul Sow lépp international nuyu naa sëriñ bi fekk naa macha allah Sow waaw gis naa Ousmane Diallo nuyu naa la nuyu naa ñoom Abu Diop nuyu naa ñëpp ziar naa Abu Diop jinne yi dafa bari si tubaab yi de loolu moo ta kay waaw da demoon gis Ousmane baax na trop mu jiya jokki yan dam wala jokk balde ma loolu passé na foto sëriñ bi kay am na allahu bi dafa leer nañ allahu muhammad bi dafa leer nañ nañ nañ macha allah macha allah loolu kay yàgg na gis foto bi jërë ngeen jëf doo waar ñàkk jëriñoo jëf jël Amat Sakho salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum association Daarullah international bu Thierno Moule Sow man la seen mbokki taalibe Saada Moule maa ngi leen di jaaree yëpp depuis si kaw di wér si suuf ñu ngi leen di jaaree leen fay seen wàccuwaay waaw di ñaanal sëriñ bi yàlla na fi yàggate wér macha allah Thierno Moule Sow Maria Sarr Thierno Moule Sow Maria Sarr Thierno Moule Sow Maria Sarr macha allah macha allah. ñu ngi koy ziare bu baax a baax di nuyu waa Mahmoud Pandey bi bi ak respond nga wax loolu ah, man daal man tamit photo bi daal dama ko zoom zoom zoom waaye bët yi suuf fii man tamit leer leeraay laa fekk gis ak ñaari allahu akbar waaw bu baax doo xam ne doo gis ne saan allahu akbar ko xulli sa bët bu baax a baax a baax a baax nga mun koy gis waaw si ron bët nii si suuf. waaw macha allah macha allah kenn du suñ nag man gis naa su foofu ñaari bëri de beneen côté bi ak beneen côté bi tamit macha allah soo ko zoomee da ngay gis ne allah ko bar bi si ron waaw waaw moom man gis naa ko foofu naa tamit ma zoomaa dal ma xool beneen fekkee leneen tamit waaye leeraayam bi moom xam nga sëñ moom leeraayam bi moom kenn du ko weddante moom leeraayam bi mu fa waaye nag allah ko bi tamit gis naa ko su ñaari ron bëri waaw man nekk binde yu sew yu su suuf. si ron macha allah kenn du suñu sëriñ jërë ngeen la rek moo ñu woon di leen di respond question ah, yi rek macha allah Sada Mule di nuyu waa Momar Pané bi yëpp aram ma ñëw si beneen audio. salaamaaleykum salaamaaleykum kër Daaru Laay yàlla sama mbokki taalibe yi nuyu leen fay si jàmm naka ngoon si ça va nuyu leen baax a baax station Kernam lay soow ma ngi naan ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mm, liñ si jàmm maa mbokki mu lay mu lay naa leen de mm, macha allah macha allah gis nañu photo bi tonto Ousmane Sam si sama ruus macha allah gis nañu photo bi gis nañu dégluñu tamit euh, rajo Serigne bi ak euh, rajo suñu taalibe macha allah macha allah macha allah photo bi moom yaay kese ngay gis. suñu sëriñ bi moom leeraay kese moo nekk ak moom leeraay kese kese kese kese kese kese macha allah man da man damaa tim photo bi ma damaa tim photo bi bu baax a ¿eh? baax nag ma timme rek ma commencé bi biri ma damaa tim photo bi rek ma commencé on def kuy lox macha allah leeraay kese laa gis en plus kanam bi yëpp bët yi bët yi tamit macha allah allahu kese laa gis kanam bi tamit man man man kii naa wala damaa tim kanam bi wala man tim naa photo bi baax a baax ni man lu mu gis ci kanam bi man man kanam bi yëpp ay ay wala kanam bi yëpp ay allahu moo nekk wala du ma wala du ma wax sax wala wala benn côté la man bu ma timi photo bi moom man lu ma gis ci moom kanam bi yëpp allahu laa gis ci moom kanam bi man man loolu laa gis de voilà loolu laa kanam bi yëpp allah laa gis ci moom kanam bi yëpp allah la macha allah bët yi macha allah bët yi moom billaahi bët yi moom ku ku am rab wala billaahi doo ko mun tiim billaahi doo mun tiim bët yu baax doo mun photo bi di ko xool bu baax déjà man damaa commencé di tiim rek <laughs> on dirait <laughs> ma commencé voir di vibrer non macha allah macha allah eh, ñu ngi ñaanal suñu sëriñ bi ci kaw ci kanam yàlla ñu am jàmm ak salaam ak gudd fan ak wér gu yaram macha allah photo bi moom macha allah oh là là macha allah leeraay kese kese kese kese la allahu allahu bët yi allahu kanam bi tamit allahu macha allah uuf alhamdulilah ñu ngi sant yàlla nag ñu sant yàlla ñu sant yàlla ñu sant suñu sëriñ di ñaan ko jar jàmm ak salaam ak wér gu yaram di nuyu tamit suñu yaay Ajaratu Mariama Kamara macha allah maa ngi ñu encore di dégg rajo yëpp instant yi pare moo sax mais il faut moom dugg quoi man tamit ma wax sama xalaat xalaat voilà man lu mu moom laa laa ko wax quoi macha allah xam naa ba ci kanam allah nuyu naa ñëpp sama mbokki mu mu lay nuyu naa leen dégg naa leen hmm. xam naa ba ci kanam incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw Ousmane maa ngi si bunt bi di la ziyaare Mariam di ziyaare. du wax waa man seetluwaan naa euh, photo bi bu baax a baax a baax a baax waaw man si tuñ yi waaw tuñu kii bi gauche bi ak droite bi si suuf allahu laa si gis waaw te moom euh, sëñ bi macha allah macha allah euh, dafa am leer bu doy waar waaw waaw jë bi moom feeñ na moom jë bi moom allahu ak bët yi waaw ak bakken yi waaw ak euh, moom lay xool ni bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaye tuñ yi daal man daal gis naa si eh, gauche ak droite bi allahu waaw gis naa ko si waa gis naa ko si de waaw jébbi moom lenn nañ jébbi moom allahu muhammad waaw daal ànd ak leer bu bu doy waar daal macha allah daal bu jéggu dayoo waaw kon Ousmane <laughs> waaw loolu laa loolu laa gis man salaamaaleykum salaamaaleykum kër Daaru Laay kër yàlla sama mbokki taalibe yi nuyu naa leen fay si jàmm naka ngoon si ça va nuyu naa leen baax a baax nuyu naa sa sœur Thierno Moulé Sow nuyu naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu si jàmm maa mbokki Moulé Moulé yi nuyu naa leen de hmm, macha allah macha allah gis nañu photo bi tonton Ousmane Sam si sama ruus macha allah gis nañu photo bi gis nañ déglu ñu tamit euh, rajo Serigne bi ak euh, rajo suñu taalibe yi macha allah macha allah macha allah photo bi moom leeraay kese ngay gis suñu Serigne bi moom leeraay kese moo nekk moom leeraay kese kese kese kese kese macha allah man da man damaa tim photo bi ma damaa tim photo bi bu baax a baax nag ma tiime rek moo commencé bi biri <laughs> moo tim photo bi rek moo commencé on dirait lox macha allah leeraay kese laa gis en plus kanam bi yëpp. bët yi bët yi tamit macha allah allah kese laa gis mm. kanam bi tamit man man man kii naa wala dama tim kanam bi wala man tim naa photo bi baax a baax ni man lu mu gis ci kanam bi man man kanam bi yëpp ay ay wala kanam bi yëpp ay allah moo nekk wala du ma wala du ma wax sax wala wala benn côté la man bu ma timi photo bi moom man lu ma gis ci moom kanam bi yëpp allah laa gis ci moom bi yëpp man man loolu laa gis de voilà loolu laa kanam bi yëpp allah laa gis ci moom kanam bi yëpp allah la macha allah bët yi macha allah bët yi moom billaahi bët yi moom billaahi ku ku am rab wala billaahi doo mun tim billaahi doo mun tim bët yu baax doo mun tim photo bi di ko xool bu baax déjà man damaa commencé di tim rek <laughs> on dirait <laughs> ma commencé voir di vibrer non macha allah macha allah eh ñu ñaanal suñu sëriñ bi ci kaw ci kanam yàlla ñu am jàmm ak salaam ak gudd fan ak wér gu yaram macha allah photo bi moom macha allah oh la la macha allah leeraay kese kese kese kese la allahu allahu bët yi allahu kanam bi tamit allahu macha allah uuf alhamdulilah ñu ngi sant yàlla nag di sant yàlla ñu sant yàlla ñu sant suñu sëriñ di ñaan ko jar jàmm ak salaam ak wér gu yaram di nuyu tamit suñu yaay Ajaratu Mariam Kamara macha allah maa ngi ñu ngi encore di dégg rajo yëpp instant yi pare moo sax mais il faut moom ma wax sama xalaat voilà ku nekk wax sa xalaat moom laa laa ko wax quoi allah xam naa ba ci kanam incha allah nuyu naa ñëpp sama mbokki mu lay mu lay nuyu naa leen dégg naa leen hmm, xam naa ba ci kanam incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu wa daarulahi man lay seeta Anne Moulé maa ngi di nuyu di leen ziar di leen seen wàccuwaay. di leen di leen ñaanal di sakku ñaan di nuyu sëriñ bi bu baax a baax di ko di ko jox wàccuwaayam di nuyu jinneem yi yëpp di nuyu suñu ajaratu Mariama Kamara di nuyu sama papa Ousmane Samb sama ruusi tonton Sow waa panel bi yëpp si kaw ba si suuf léegi déglu waa partie de info bi maa ngi déglu message yi nag ndànk-ndànk donc euh, maa ngi nuyu ñëpp macha allah waaw euh, euh, macha allah foot bi daal. bu ma ko zoomee daal gis naa si jee bi daal lu mel ne comme mu euh, bind Allahu euh, mais ba tamit dafa mel ni comme gis naa si laahu mu ba bët bi bon su ma ko xoolee en face bu droite bi dafa mel ni comme laahu ñu si bind wala laaha euh, beneen bi tamit Muhammad en tout cas daal boo xëccee photo bi ba si yem moom am beneen lumière bu fort bi ñëw sa bët moom. mais euh, macha allah macha allah en moom moom moom moom ne laa si gis moom loolu laa si gis macha allah macha allah. Seydina Ousmane photo bi yéeme na yéeme na liy takkee sëriñ bi nekku gis na nga wax ndax daf ci gis lu doy waar man de maa ngi doon wax jëbi ak yéen yi waaye bii paan ak si tuñ yi laa ko gis ci gémmiñ bi tuñ bi ci suuf. foofu laa ko gis bind bi bu leer naññ naññ naññ allahu muhammad bu leer naññ macha lee tax su sunu boroom defal ko lu mu wax mu barkeel mu ngi ci tuñ bi ci tuñu suuf bi laa ko gis allahu muhammad bi macha allah macha allah yal na sunu boroom gën a yokk may gi gën a xeeb dolli yàlla lafal ko cat làq ko ba fu làqu yeggul lii rek lay mën a demee ndax samp suñu boroom la suñu boroom a ko samp te yàlla ko mu samp sempi la du yomb moo tax ko yebu rek teel a nangu yàlla nañu yàlla taas ci barkeem daal yàlla gën a di fàq biddiwam yokku yokku leerami yokku may bi ci barke yaa rasulalay barke ñetti Thierno Moule barke 66 Thierno Moule barke 70 Thierno Moule jërë ngeen jëf ma jóg julli ji timis nag te ñëwaat. maaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu man la Marème Salma ñëwaat waaw Ousmane tonton Ousmane Samsi sama rosi man li ma gis laa wax li ma gis man dama njëkkoon wax jëbi ak suufu bët bi loolu laa wax waaye après bu ma xoolaatee zoom affaire bi bu baax a baax a tout cas daal yëpp baatin la man loolu laa gis amul foo amul baatin parce que boo xoolee bu baax a baax a baax a baax dafa mel ni ne affaire bi dafay am lu ay yu xonq xonq te yooyu yooyu am yooyu yëpp waaw macha allah baatin kese laa si gis man nag mënuma wax allahu bisimilahi rahman ay kii yooyu waaye en tout cas daal yëpp moo am baatin waaw en tout cas daal lu dem si lu baat bi ba si bopp bi yëpp kanam gi yëpp liy feeñ yëpp baatin la macha allah. yal na yàlla yal nañu yàlla tas ci barkeem vraiment moom macha allah si kaw si kanam rek man de man loolu rek gàttal bi man foofu laa mun a wax waaye munuma wax bisimilah ma ne allahu la mun na mun ne raxmaan la munuma ne ne lii la en tout cas daal yëpp baatin la xeef yeeg biir bët yeeg si euh, euh, euh, kaw bët beeg bakkan beeg gémmiñ beeg tuñ yeeg waaw te xamoon bu tàllalee làmmiñ bi sax baatin a nga si. en tout cas daal man loolu laa gis waaw te billaahi bu tàllaloon làmmiñ bi mu siiñit baatin yaa ngi foofu man noonu laa gis man moom vraiment gisuma lenn lu dul loolu lépp am baatin te buñ ko xoolee sax li ma wax di ngeen xool boo leen ko zoomé ba mu kii lépp dafa am baatin foo ti xool it baatin la man loolu laa mën a gis waaye man mënuma wax ne lii bisimilaay la lii allahu la lii lii la wax dëgg yàlla maa ngi leen di ziar si kaw si kanam rek kenn du suñ soriñ wallaay yàlla nañu yàlla tas ci barkeem waaw topp ko rek nag waaw di ko jaamu rek nag di ko liggéeyal rek macha allah si kaw si kanam. waaw Ousmane sant sama ruusu man la tonton Sow waaw duggoon naa sànq waaw waxoon ne ci jëbi allahu la ñu bind ci jëbi waaye ci bët yi ci boppam ci digg bët yi aussi allahu bind nañ ko ci. waaw ba ma xoolee zoom laa jël xool ko bu baax a baax bëti ñaari bëti fu ñuul fi fi mu ne loolu gis naa fa lu mel ni allahu ci bët yi waaw fu ñuul fi ci digg bët yi ñaari bët yépp allahu mu ngi ci ak ci jëbi waaw kon nag pour ma mën a mottali eh, eh, la ma waxoon waaw allahu daal gis naa ko ci jëbi waaye nag ba ñu ne nañu xoolaat yépp ba ma defee zoom mel na ni gis naa allahu ci ñaari bët yi ci digg bët yi benn bët bu ne dafa mel ni allahu lañ ci bind waaw di leen sant di leen gërëm waaw loolu ma boole ko la ma waxoon muy ci jëbi gis naa ci allahu ba ma jëlee zoom xool bët yi bu baax a baax gis naa ci bët yi ci ñaari bët yi benn bët bu ci digg bi ñu ngi ci bind allahu kon nag allahu akbar jërëjëf Thierno Moule Sow ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di leen wax jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum daara laay kër yàlla sama fa famille maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal gudd fan ak wér sutura teranga àdduna ak di ñaan suñu sëriñ Thierno Moule na fi yàgg te wér saw kullu yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér di ko ñaanal yàlla lafal ko cet làq ko fa yàq ko ci musiba ak seytaane yàlla na ko yàlla làq yàlla aaral ko yàlla yokk xam-xam bi yokk at yi yokk wér gu yaram gi làq ko di ñaanal suñu yaay soxna Mariama kamara Adja Mariama Camara yàlla na fi yàgg te wér lépp moom la macha allah ñu kontaan suñu sëriñ de maa ngi leen man mën Fat Fall Moule Italie maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen ziyaar leen jox seen wàccuwaay di nuyu Moule Moule yëpp góor ak jigéen maa ngi leen di nuyu di leen jox seen ñëpp macha allah photo bi de Ousmane gis naa ko de macha allah macha allah photo moom boo ko eh, agrandir sax di ko xool maanaam sa sa bët yi sax xanaa day xaw a jooy parce que photo bi da am leer macha allah photo bi dafa am leer man daal gis naa ci leer daal mais ci tuñ gis naa ci comme genre écriture moom wax dëgg yàlla gis naa ko ci mu ànd ak leer ak ci jëbi ci jëbi tamit gis naa ko ci ak bakkan bi leer bu bëri nag mi ngi ci bakkan bi ci bakkan bi la gën a feeñ sax bu bëri te ba pare ci front bi tamit jëbi am na lu mel ni image même pas écriture comme image mi ngi ci mi ngi ci jëbi comme image image bu mel ni image bu taxaw mi ngi ci jëbi loolu moom gis naa ko ci wax dëgg yàlla leer gi moom foo ko après ki romb na foofu moom wax dëgg yàlla surtout bakkan bi bakkan bi leer bu bari mi ngi foofu bu ko xëccee gis naa ko ci wallahi gis naa ko ci comme niñ ko waxee turu Allah bi moom niñ ko bindee ci tuñ bi noonu nañ ko bindee ci jëbi mais à part turu bi am na image bu ma gis moom ci front bi ci jëbi moom gis naa ko ci mel ni image bu taxaw nii ñu ngi noonu moom romb na foofu wax dëgg yàlla kon ci kanam waa borom sam samaroos si jéeb yi daal man am na sa jéeb yi tamit fu ma gis fi mu xaw a néewi foofu gauche ak milieu ak droit bi am na lu ci nekk de waaye nag man mënaguma ko gis <laughs> wallaahi front bi nu mu noonu am na image bu image bu si nekk ko mais dama mënagul gis image bi peut-être sama bët nag sama degré bët eggul foofu wallaahi waaye nag man moom xool naa de laa ilaha illallah am na fi Muhammad am na fi image am na fi mais image bi laa dul gis bu baax quoi. borom sam samaru si am na leneen lu ma gisaat si sa biir si sa biir bët yi si sa biir bët yi gis naa naa si beneen mbir gis naa si sa biir bët bi beneen bët waat beneen image wallahi kooku maa ngay door a gis nii léegi léegi léegi si biiru petu peru bët bi à gauche am na beneen image bu nekkaat si biir bi. xaw ma bët la xaw ma daal waaye gis naa si loolu moom waaw nga confirmer ma bopp <laughs> maa ngi wër rek confirmer ma waay. ok lu ma gis moom biir bëtam yi moom photo moo fi nekkaan encore moom photo moo nekkaan ci biir bët yi per per bi ci biir loolu laa turbe ci kaw ñu bindee kii jëbiñu jëbiñu bind sa allahuma quoi waaw loolu loolu lañ ci bind <laughs> allahu lañ ci bind waaw moom moo si nekk soo ko jutalee nii. allah la lay jox le waaw borom sam samaro si si bi yi daal man am na sa jéeb yi tamit fu ma gis bi mu xaw a néewi foofu gauche ak milieu ak droit bi am na lu ci nekk de waaye nag man mënaguma ko gis <laughs> wallaahi front bi nu mu noonu am na image image bu si nekk ko mais dama mënagul gis image bi peut-être sama bët nag sama dëgërë bët eggul foofu wallahi waaye nag man moom xool naa de laa ilaha illallah am na fi Muhammad am na fi image am na fi mais image bi laa dul gis bu baax quoi. man de woo naa ko dama sam sama ruusu ñëwal ma bopp ndax ma gagné vite fait bi ah ndax ma gagné vite fait waaye daal man daal gis naa ay image daal si biir image waaw ay image yu jàkk daal jumaa ak soroon mel na gis naa ko ci de waaye nag moom xam naa moom bii moom fii laay arrêté parce que xool naa xool xool xool léegi maa ngi xaar résultat yi rek ma xam ne sama chance kon moo si nekkul bu ma gàñëwul jërëjëf borom sam si samaru si nag léegi nag man nag sam si samaru si ñëw na nee na ma foofu am na jàkk ak ay sóoróol gis naa fi jàkk ak ay sóoróol gis nga genre lin boobu ñuy def nii xam nga comme weer bi nu mu weer genre sóoróor boobu gis naa ko si de ak jàkk waaw waaw sama gars yi laa woo ñëw na wax nañ ma affaire yi. asalaamaaleykum président Alpha oh macha allah macha allah ay waay di moom alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf yàlla président man maa gis ci jëwu Thierno Moule saw bii ñu bind ci alxuraan maa gis ñu bind ci alxuraan man de li ma gis allahu laa gis ci jëb man li ma yàlla won moom laa gis macha allah macha allah sant yàlla ay waay tubarkàlla macha allah jër jërëjëfe suñu borom jëfe suñu borom yal na yàlla def jàmm man de loolu laa gis loolu laa gis dama ko daf ma frappé carrément loolu laa gis alhamdulilah jërëjëfe Thierno Moule Sow jërëjëfe Thierno Moule Sow jërëjëfe Thierno Moule Sow yal na la fi yàlla bàyyi nga yàgg fi loolu te